kon mbokk yi bokk déglu kàddu yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma su noppee nag ñu jox sëriñ Ahmadul Badawi Mbàkke mi nga xam ne moo jiite daayira Rawdu Rayaahiin waaye tey jii moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci kàddoom lay wax kon ñu bokk teewlu sëriñ Afia Bousso al imam alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Badawi mi Cheikh Mouhamadul Fadal ak ci tuuru daairatu muqaddamatul xidma muy ñaari daayira yi nga xam ne ñoom sëriñ bi santoon ñu taxawal ko gàmm gi fii ci barabu sell bi le te fa lillahi alhamdu wa yaakaar naa ne def nañ ci suñ kem ba kattan doonte agul sax ni ko sëriñ bi bëggee waaye ñaan ci baaxu sëriñ Tuubaa mi nga xam ne suñu boroom du delloo daraam mu àggale ko ba fagga mu gën a mate kon daal bis bi mu ngoog tabal nañ ko ci walisu Sëriñ Tuubaa bi nga xam ni moom duwaan du ko ubbi lépp ci tàbb rek mucc na shakartuhu ala firaqil xisaab ndax lu ci dugg lu nekk rek lu jub la wa jaalihi kulliyati ci ihtisaab kon ñu am yaakaar lool ci ne li suñu borom diggee ci ku dundal guddi gii da ko ci jële te sëriñ bi nettali ko ci ay xasidaam ñu ngi yaakaar ne insha allahu taala dañ ko ci jële jëlin bu kawe njort ndax barab bi ñu ko defee ñuy sant nag ñëpp gannaaw bu ñu ndokkeelee jullit ñëpp ak fu ñu a nekk ci àddina bi di sant nag ñëpp di jiital a cheikh Mouhamadou Muntaqa xafizahu llahu wa raa yàlla na yàlla te bu ko kàttan te yokk aw fanam be li mu am yéen liggéeyal ko sëriñ bi liggéey ko ci lislaam yi lépp mu def ko nu koy njortam te nu ànd ko ak moom ndax gàmmo gi yaakaar naa ne ni mu ko santaanee loxoom moo ci jiitu lim ci defit yaakaar naa ne taxawal na gàmmu kon ñu ngi sant képp koo xam ne rek gannaaw bu ñu jiitalee sëriñ bi ci cant gi ak ci ñaan gi mu ngi sant képp koo xam ne jàpp nga ci gàmmu gi di na wa maanawiyan jiital ñi nga xam ni ñoo tam loon ca timis ubbi gàmmu gi danga fukki kaamil ak ñaar ubbee ko gàmmu gi danga fi ay diwan yu baree bari yoo xam ne alhamdulilah ak salawaat te gur gi yëpp ñu ngi ànd ak noonu ci biir jukki yi di ko seddale ba nëgëni si di santit mbooloo mi nga xam ne kuréel bi nga xam ñoo doon jàng Mawaahibu Naafi' muy njaboot gi di jàng di santitam ñi nga xam ñoo doon jàng Jazbul Quluub waaye di ja sant bu baax itam suñu mbokki daayira ilham latiful xabir muy waa Touba Ngoy yi muy suñu mbokki séeréer yi yaakaar naa ne tey moom fokk dañ leen toggal cere ndax jàng yu ma sa jàng rek yaakaar naa ren tey moom yaakaar naa jéggi na dayoo tey moom yàlla nañ lool ñu toggal leen ay bagaani cere incha allah mbay ba ñu toog rek dañ ci jëm léegi di sant itam bu képp koo xam ne kon jàpp nga ci ak noo ci mën a jàppee ci coona ci bokk yi nga xam ne ñu yor organisation bi gis ngeen ñu taxawee ba dara sooxewul mbooloo mi fa tabarakallahu waaye ku nekk ànd nga ak dal ànd nga ak déglu ànd nga ak yor sa xasida war ngay tudd yàlla war ngay aw mu mel ni kon loolu lañ sàkkoon ci barab bi te organisation bi taxaw na ko ba moom amee noonu kon ñu ngi sant tam ñoo mboolem ñi nga xam ni ñoo organisation bi ñu ngi sant ñépp bàyyiwuñ kenn di sant tam ñi nga xam ni jàpp nañ ci ci waaru ndimbal li ma ko waxee sànq gannaaw buñ ñu gisee sëriñ bi moo ci jiitu am na ay bokki taalibe yoo xam ni def nañ ci ay ndimbal ñii dugal yónnee nañ ay nag xam naa duñ bëgg ku tudd seen seen tur ba ñi defar ay ngatu ñi tàngal ay kafe ñi indi ay meew ba ci ñi indi ndox kon lépp lu fa waay def rek yàlla na ci dajeeg le sëñ bi wax ni e, sëñ bi wax ni ku ci dépensé benn dërëm li nga ciy am te muy mel nga ni koo xam ne fekke nga fekke fekkee na Badar wala fekke xam ne ni ba shahid ca yor bu toll noonu kon ku ci def ab dërëm wala ab tànk yàlla na suñu loolu ñu ngi baral nag ak cant bu baax suñu mbokku taalibe bi nga xam ni moo indi baas bii ku ne xam ne ne baas bi am na fi solo lool gis nga daaw bu doon moom taw bi dana xaw a soo sooxeel mbir mi moo tax ren mu tër ko indi fa tabarakallahu mu toppatoo ko ba mel nii mel moo ñu ngi koy sant di ko bàyyi ak sëñ Tuubaa mi tax mu di ko def di ko bàyyi tam borom gàmm gi mu yokk ko te fay ko ngir ñi fay ñu fay ñëpp kon daal loolu mooy kàddu gàtt yi nga xam ni ñu ngi ko doon ñàkk sànni ñu ngi sant ñëpp daal ak nu ci waay mën a jàppee rek ci wàllu yëngatu ci wàllu jëf ci wàllu génne ci wàllu lépp di ñaan képp koo xam ni indi nga fi ràgg yàlla ko suñu borom saafar képp ko indi soxla yàlla ko suñu borom bi faj képp ku fi indi ak ragal yàlla suñu borom defal ak wóolu defal naataanga ba faw defal ak njub te ñu saatal mu saqima def ñu dëgg dëgg taalibe Serigne Touba Serigne Touba nangal suñu taalibe moom saakala bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Afia Bousso ci kàddu yi kon mbokk yi su ko defee ñu bokk déglu kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwri ni borom liggéey bii di xadimu rasul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 ñu nga yëkkati kàddu di ko tàmbalee nag ci ab ziyaar bu mat sëkk bu yeyoo ak moom jëmee ko ci moom ak ay ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu man koo def ni ma ko bëggee di ko ziyaare bu baax a baax ci guddi gu tedd gii guddi gii nga xam ne mooy guddi gu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne cheikhuna alxadim radiallahu anhu kon gii mooy guddeem ndax moom day sallallahu alayhi wa la bëggoon moo doon ab soppeem moo doonoon ab rayukaayam moo doonoon mbégteem moo doonoon alalam moo doonoon léppam guddi gi itam doon guddi gu màgg laylatu mawlidi nabi laylatu maxwi riya laylatu maxwi taa bi si taasumi bi han najaatu wal falaax maa sururi wa najaax biha rabaax wa salaax maa difaaxi niqami noonu la ko sëriñ bi waxee kon guddi gu màgg la doon guddi goo xam ne it sëriñ bi yàgg na koo dundal ndax axyaytu mawlida nabi min asashi wa qaada lii fawqal fi xam hamsashi kon loolu yàgg na daanaka dañuy wax ne rek dafa maaseeg wooteem bu tedd bii nga xam ne kon boobaak léegi mën nañoo wax ne ban téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom kon loola Mbàkke Kajoor la woon boobu la ko sëñ bi tàmbalee dundal te loolu moo ko bindal boppam diir boobu fawqal mu naa nag fi xam sachi loolu nag lu kéemaane la ndax xam sachi boobu defe naa ne mooy tolloog at mi jiitu ak ñibbiseem fii ci Touba te fawqal mu naa la wax guddi gi waqaadali fawqal mu naa kon Cheikh Mahamadul taxaa mi ngi yónnee ay nuyoo akuk cant jëmee ko ci mboolem jullit yi akuk ndokkeel ci mbooleem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax guddi gi mooy guddi xayrul alamin mooy guddi xayrul bashariya sëriñ bi mi ngi ci ñoo ndokkeel yépp waaye di ci jagleel nag taalibe yi di leen ci jagleel ak cant akuk ñaan akuk ndokkeel waaye rawatina nag ni nga xam ne ni lañu ñu dunde bis bi ñu ngi koy dundale ndax wax naa léegi ne sëriñ bi ba mu ko tàmbaleek léegi mat na téeméeri at ba mu ko tàmbalee def moom ci boppam téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom ci ren xam sa waaye nii ñun ñu ko defee fii rek noonu lañ ko royee ci ne ko ku baax ki daan defe noona rek waaye li mu ci digle yàlla nañ ci moom fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada faxtariman waazimi fa man yuazim mawlida xayral baraya ahmada faka shahidan shahida te loolu lu réy réy badaran bi xayri waxam waaye ni ñu ko def itam di joxe ay ñam di joxe ay kenn ku nekk sa kem kàttan nga def ko indi ko fii ci penc bi sëriñ bi mi ngi ci sant bu baax waaye nag noonu la ko sëriñ bi na ko sëriñ bi ñaanale ñuy def loole fa kullu man anfaqa fii mawlidihi l musharrafi maalan bi xayri sarafi wala bi qadri rahmi fa innahu qad dhafira bi maa yudimul bushara wala yulaaxi darara yowma ijtimaai mi kon guddi gu màgg la gu kawe la waaye li ci sëriñ bi diggee lu bare bare la lu rëy la kon yàlla nañ ci taseeg moom te Cheikh Mamadul Muntaxa loolu muy wax ne ba mu laal suuf moom la waxaat ci guddi gi ba mu laal suuf lépp sëriñ bi nag la wax ba mu ne bu mu laal suuf liggéeyub sëriñ bi la wax te lii ci la bokk moo ko daan defal boppam te wax nañ ne ci mën nañoo wax ne ci lim njëkk a def la ndax ak léegi téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom la kon loolu yàgg na kon sëriñ bi mi ngi sant bu baax di gërëm di jagleel nag mbooloo yi nga xam ne ñoom la dénkoon ñuy saytu guddi gi muy muqaddamatul ma bi nga xam ne ñoo am tawféexi yor liggéeyub sëriñ bu mag bii yor jumaa ji yor barab yu tedd yi ci dëkk bi nga xam ne mooy yaakaari murid yëpp fi la nekk kon sëriñ bi mi ngi leen di jagleelaat ak cant ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci guddi gi waaye ànd ko nag ak seen bokk yi nga xam ne mooy rawdu rayaxiin nga xam ne ñaari mbooloo yi ñaari tur la waaye mbooloo mi menn la bépp liggéey bu bu muqaddamatul xidma di def ñoo ko rawdu rayaxiin ñoo ko ànd rawdu rayaxiin itam noonu kon ñaari euh, mbooloo lañ yu bokk tool bi bokk liggéey bi am ñaari tur waaye menn la sëriñ bi mi boole woon leen moom itam mi ngi fedd liwaat boole googu yi waaye di sant nag mboolem bokki taalibe yi ni ma ko waxee woon cant fedd feddali na ko lool mi ngi ànd ak loolu nag ndax mi ngi fii ci kër Cheikhoul Khadim radiyallahu anhu noo ko ñeewante di ko sakkanal moo tax nag nu nu mu waaye mi ngi toog fii ci kër gi di déglu dara moom ñu la ànd jataay bi na mu ko daan defe naka jekk noonu la koy defee ñu ñaan ñu ñaan mu yàgg ko def lool te ànd ko gër di ñaan sunu boroom defal nu kéemaan ci moom ndax sunu borom kàttanam amul fu mu yam waaye moom day ak yàggam fi am na njariñ lool ci yoon wi am na njariñ ci àdduna bi am na njariñ ci réew mi ñu ngi ñaan mu yàgg fi ànd ak wér ba lépp loo xam ne yéene na ko def mën koo def di xam le ne cheikhuna alxadim radiallahu anhu day ku fanaanee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manees naa wax ne defal nga ko lu ko neex mën nañoo wax ne itam bëgg na ci taxasaay itam yii ñu fi doon jàng wépp xeetu tagg woo xam ne nit mas na koo tagg sallallahu alayhi wa sallam tagg na ko ni ba tagge ko nu ko kawee noo xam ne mën nañu wax ne kenn fekk ko ci gépp julli goo xam ne masees na koo julli ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mën nañoo wax ne sëriñ bi julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam goo xam ne keneen ku dul moom lottu na ci waaye nag jox ko wàccuwaayam jox ko dayoom muhammadun mithaaluhu lam yaati fi ma mada wa abadan laa yaati tabbata anna rabbana lam yuridi mithlan lahu fa mithlahu lam yaridi loolu kenn mënta wax lu ko kawe te loolu la wax sallallahu alayhi wa sallam nee na xadi wiqaayatun li rijlil mustafa an shawkatin loolu defe naa ne ah kenn mosu koo wax sallallahu alayhi wa sallam te loolu mbooleem xasida yi ñu fi fanaanee jàng buñ ko doon topp ba suba du mat waaye bayit woo ci yëkkati da ngay jàpp ne wii moom weneen mënu ko féete kaw ba ba ba ba xasida yi di kii te kenn xamul nu mu toll kon ku fanaan fii ci ëttam bii ci wetam fanaan ni fay jàng xasaa it yi nga xam ne moom la tagg sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi teew lu teew lu gu mel nii nañ gëm ne lépp lu nu fi ñaan suñu borom dana ko nangu kon nag ni ko sëriñ Afiya ñaane léegi Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo yor ñaan gi waaye ci barkeem ci barkeb Cheikhuna Alxadim radiallahu anhu ci barkeb sangam ba sëriñam ba soppeem ba sallallahu alayhi wa mi moom guddi gii sëriñ bi mi ngi ñaan képp ku fi ñëw loo fi indaale ci tawat yàlla na ko yàlla saafara jëpp aajo ju fi nit indi lu mu niru lu rëy rëy lu tuuti la fa borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko suñu borom fa faj ci barkeb Cheikhuna Alxadim radiallahu anhu ñu teewewaat ko at yu bari lool te ànd ak jàmm sëriñ bi yàlla bàyyi ko fi waa sëriñ bayit woowoo sëriñ bi doon ñaan rek yaa rabbi jali yaa rabbi jaalil muridina maan fii xasnika alxasini wa shablaj maa yàlla na ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu tàllal nangu ñaan sëriñ bi ñaan sëriñ bi mi ngi sant mbokk mi nga xam ne moo indi rajo yi rajo yi nga xam ne moom lañ doon jànge mbokk yi nga xam ne ñoo ko fi indi ñoom it ñu ngi leen di beraluk cant bu baax a baax kon nangu leen ñaan bismillah amin amiin amiin amiin amiin ñu ko teewee déwén bi barakati xaadimu rasul te mu ànd ak wér ak xéwal alhamdulilahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat jërëjëf Cheikhul Xadim kon mbokk yi yéen a dégg kaddu yu am solo yooyu nga xam ne moom la ñu tëjee gàmm gi te mu bàyyi ko ci sëriñ Ahmad Badawi Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moo doon wax ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko suñu borom yàggal lool te mooy ko wér. Euh, waaye kaddu yu ko jiitu di kaddu sëriñ Afiya so mi nga xam ne mooy njiitul daayira muqaddamatul xidma bu jumaay Touba muy ni ko suñu Ahmad waxee muy ñaari kuréel yoo xam ne benn jëmm la bu am ñaari tur mel na mbooloo mi rek la muy mbooloo muy liggéey sëriñ Touba. ñu toog taxaw ci ak kenn koo xam ne Serigne Sam Bousso Abdourahman moom itam di kenn ci muxaddamatul xidma waaye di kenn ci daayiratu Rawdu Rayaahin di mbooloo moom nga xam ne mooy kuréelu xam-xam gi Serigne bi dénk lépp lu aju ci wàllu xam-xam ci dëkk bi ba ci euh, naalam bu bees woowu sasam bu bees woowu muy université bi Serigne Sam gis nga gàmm gi ni mu demee euh, ci njëlbeen gi ba ci mujj nii muy gàmm goo xam ne ñi ngi ko royee ci ni Serigne bi daan gàmmoo mm-hmm. ci njàngoom nga xam ne mooy euh, diwaanul amdaax diwaanu salawaat euh, diwaan quraaniya waaye itam ci ñetti kuréel yi ni ko sëriñ bi daan di defee njaareem muy kuréelu jasbul xulóob fukki bayit ak ñaar muxaddamatul euh, mawaahibu naafiq fukki bayit ak ñaar muxaddamatul amdaax fukki bayit ak ñaar ak buntu ci barzan ji bi nga xam ne day nettali jaar jaar ak histoire yonent bi salaay sallam muy mbir moo xam ne tey wares na ko gën a mën a yaatal ba mu daj fépp ni ko sëriñ bi waxee tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati kon jàpp ko ni ñu ko defee ci sunna ñu bëggoon laa bàyyi rek nga tënkal ñu tuuti rek ci euh, melow gàmm googu ak lan lañ ci mën a jëre ci ay njëriñ jërëjëf sëriñ Abdoulahi Diop li ñu njëkk a def sant suñu borom sant suñu borom bim ñu defalee tawfiq ñu gàmmoo nii nga xam ne noonu la sëriñ Touba radiyallahu anhu daan gàmmoo ci njaareem waaye def ko ci ndigalul sëriñ Touba ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy sëriñ Touba. ni sëriñ Touba daan toog ci wetu ñiy gàmm noonu la Cheikh Mouhamadou Mountakha tooge suñu wet nekk suñu biir loolu kon ku ko yàlla fekkeloo la ngay jëkk a def sant ci yàlla waaye di ñaan yàlla di ko fekkewaat at yu bëree bëri ànd ko ak Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye di am mbégte lool ci nii nga xam ne dunde nañ ko ni eh, mu xaddamatul xidma am ci taxawaay bu bi mu ci taxaw lépp li nga xam ne sëriñ bi bëggoon na ko ba taxoon mu boole nu loolu gis nañ ko kon loolu dañuy ñaan mu yàgg day loo xam ne nag Sëriñ Tuubaa ku ko xam diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa bis bii di bis boo xam ne jullit yëpp a koy màggal rawatina Cheikhul Khadim kon gàmm gii nga xam ne ñi ngi koy amal fii ci ëttub Serigne Touba nekk ci wetu Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Taxa digle ko ñu defe ko na ko Serigne bi daan defee ca njaareem loolu tawféex ju rëy rëy la jàpp naa ne nii nga ko waxee dafa war a law dafa war a yaatu ndax nag Serigne Touba lépp lu mu rëdd dañuy xam ne loola mooy li gën ndax boole julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg yonent bi sallallahu sallam ba noppi jàng melokaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngu dundam tey tënk nañ fi siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu mooy gàmmu dëgg dëgg dëgg mooy dundal ko tanzimuhu bi sunnati ji Sëriñ Tuubaa waxoon def nañ ko boole ci waajal yi ñuy waajal ñam yi mu waxoon njàng mi mu waxoon lépp kon daje na ci gàmm gi ñu def ko ci ak yar def ko ci ak teggin loo xam ne kon dal na xel lool kon loolu lu ama am solo loo xam ne dañ ciy sant suñu borom subhaanahu wa taala sëñ jàngee ci gàmm ndax ku wax gàmm da nga wax euh, waxtaane jikko yonent bi salaay salaam gis nga tomb bi nga xam ne moom lañ lay taayee gàmm gi sax doon waxtaan ci euh, yonent bi ni mu daan jëflanteeg ñi mu wuuteel ay xalaat ay gis-gis ba wuuteeg ñoom sax ci wàllu diine ci wàllu pas-pas waa ak fi jamono toll loolu tam yaakaar naa ne bind bu am solo boo xam ne war na ko bàyyi lu am solo nga wax ndax buñ nee gàmm yit mooy jàng siira yonent bi salaay salaam te buñ nee jaar jaar yonent bi salaam mooy bind yeen ca war a jële xett li doomu aadama waaye xett li ko ci wan ko yoon nu mu war a doxale ci lépp mu mu jaarle ko ci ak ak dundam jàngale ay valeur yoo xam ne tey waxtu nekk dañ ci war a mën a niitu tomb bi ñu jël ren nga xam ne tey jamono fi mu ne li gën a jaaxal doomu aadama mooy nit ñi naka la ñuy defee taayush mooy dund ci jàmm ndax jafe-jafe yi bari na kenn ku nekk di xatal sa morom ab bët booy xool sa morom nga xam ne àdduna bépp daanaka ay daay la fi ne yooyu tàkk loolu kon buñ delloosee bind boobu ci dundug yonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku nekk war nañ cee jànge ndax rawatina ñi nga xam ne wuute wuñ ci pas-pas yonte moom dañoo dañoo jàngal ni mu doon jëflanteeg sax ñi mu ci pas-pas day ñuy ay biiri julli ci seen bopp ñooy dund bokk pas-pas bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk alquran bokk kaaba gi bokk lépp kon ñooñu war nañoo gën a mën a delluwaat ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wasallam jariñu ci ca loolu nag yonent bi sallallahu alayhi day géej goo xam ne waxtu nekk dañ ci jël benn tomb boo xam ne mën nañ mën nañoo ànd ak moom ba déwén tomb bu ñu jël ren nag mooy àdduna da koo soxla kon réew mi ci seen bopp wuute ci gis-gis wuute ci xalaat wuute ci foofar loolu lépp war nañ ko war nañu mën a rafetal jëflente ba nga xam ne loola wuute du tee ànd du tee ànd liggéey ànd dundal diine ji ànd dundal réew mi loolu yaakaar naa ne bind la bu am solo boo xam ne yiñ war a jële ci gàmm la bokk te muy du ñu toll ci waxtoom sëñ Ablaye. ok jërëjëf sëñ Sam euh, ñu ngi sant bu baax a baax ci taxawaay bi ak euh, euh, ni ma ko waxee ci benn gi bennoo gi di defandoo. ndax benn kuréel la. benn jëmm ju am ñaari tur la. waaye génn kuréel gi la ndax ñi ngay fekk ci muxaddamatul xidma. ñooñu ngay fekkaat ci rawdu royaaxin. muy ab taxawaay bu am solo boo xamante ni Cheikh mun Muntaxa li mu xool ba boole ko dafa xam ne dafa bokk moo tax mu boole ko. muy lu am solo dëgg Cheikh Mamadul Muntaxa ab day joxoñ. waxtu wu nekk dañuy jàngal wan nañu kat dañoo bokk di ci tool bi di géyal Serigne bokk benn ñun ñëpp bokk naanuwaay bokk jëmuwaay kon moom mu ngi junj dañuy junj junj boobu war koo dégg xam ne liggéey yëpp noo ko bokk liggéey yëpp muy liggéeyal Serigne Touba def li ñuy wax xidma kenn ku nekk nag wet ga nga mën a taxawee nga taxawee ko fa lépp rek ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa ca liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéeyal suñ bopp la liggéey la boo xam ne yow da nga ciy jariñu tey ak ëllëg kon loolu yi dañuy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ne xam ne taxawaayam ci diine ji ku ne xam na taxawaayam ci réew mi ku ne xam na taxawaayam ci doomu aadama ci boppam kon moom dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool yàggal fi suñu kilifa yii sëriñ Afia Bousso taxawaay bi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci bopp mu xadamatul xidma mhm. ànd kook jëwrinam yi mu ko àndal mhm. yu moom it ànd ak jëwri ñi mu àndal ñoom ñëpp ñu nekk benn wan ñu yoon tey niñ maasee toog bañ tàmbalee guddi gi ba mu jeex ànd jiitu jiite njàng mi loolu yaakaar naa bind yu rëy rëy la yoo xam ne kon ab soññee la ci nun ñi ànd ak ñoom ñuy ñaan suñu boroom li sëriñ bi bëgg ci ñun mu taw nu ba nu mën koo jooxe ni ko sëriñ bi bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëriñ saam waaye xam naa bi may noppi ci sëriñ Sam Bousso lay jublu ci euh, ki nekk ci sama càmmooñ sëriñ Abdou Ahad Bousso Mokhtar di secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma bu Jumaay Touba euh, dégg nga ni ko sëriñ Sam waxee euh, gàmm nañ ba noppi jàpp nañ ne def nañ ko ni ko sëriñ bi digle te li koy firndeel mooy kàddu yi nga xamante ni sëriñ Ahmad Badawi yëkkati na ko jëme ko ci mbooloo mi jëme ko ci mbooloo mi jëme ko ci daayira Muxaddamatul Xidma mi nga xamante nii moo porté woon organisation boobu ndax gàmmu gi ci jumaa ji lañ koy defee te daayira Muxaddamatul Xidma mission mooy organiser la ëpp lépp lu aju ci jumaay Touba kon sëñ Abdou Lahad jàpp naa ne yow mi nga xamante nii yaa nekk ci bopp mbooloo moomu gannaaw sëriñ Afiya Bousso al imam mi nga xam ne mooy président bi war nga am ay kàddu yoon nag jëmale sante ko nag mbooloo mi nga xamante ni ñoo doon taxawu liggéey boobu sëñ Abdou Lahad jërëjëf sëriñ Abdoulaye xanaa di santaat yàlla bu baax a baax nag di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di santaat sëriñ Tuubaa waaye di sant nag mbooloo mi fi teew ñëpp di waa daairatu rawdu rayahin ci njiitu sëriñ Ahmadul Badawi yi ak waa daaira muxaddamatul xidma ak ñi ñu ko àndal ñëpp nag daaira yi ñu ko àndal yëpp ci jëf ju rafet ji ñu jëfeeti tey jii ndigal li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi ci dund dundal guddeeg gane yonente bi gane àdduna ak yonente bi sallallahu alayhi fii ci jumaa ji cant gi nag dañ koy tàmbalee ci moom sëriñ bi ci boppam ndax euh, jox na wax nañu biig ay kàddu yoo xam ne ñun ña fa teewoon ñëpp suñu yaram ndaw na kàddu la yoo xam ne kàddu yi cant la ko tudde waaye kàddu yi soññee la wax wax gi mu wax ne dalal nañu xelam ci liggéey bi mariix la wax dalal nañ xelam mariix ci liggéey bi dolli nañ yaakaaram itam bu baax a baax rafetloo nañ jortam itam ndax nekkin wi ci liggéey bi loolu yaakaar naa ne taalibe bu nekk moom la bëgg a dégg ci ñu sëriñ bi kon nag bu fekkante ne sëriñ bi jiital na kàddu yooyu jiital cant gi ci jëf ji daf ñoo soññi woon ci jëf ji kon luñ ci góorgóorlu woon rek doyul kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci góorlu googu ñu dégg waxi sëñ bi donte fekke wuñ ko wax dëgg yàlla rëy na ci noonu lool te xam naa ne it rëy na ci taalibe bi yëpp. alhamdulilah kon nag sunu xel dalaat na ni ko sëriñ Afia waxee. ci ne jëf jii ju jëf ji la suñu borom nangu ndax dañ ko booleeg sëriñ Touba te sëriñ Touba ku yàlla nangul la. Mm-hmm. ku yor koogus ndox te bañ a ndox da ngay boole géej. soo boolee géej saa boo soxlaa nan na tànk naan soo ba sangu sangu soo soxlaa def leneen def ko te kooku ndox sa mënuloo woon mënuloo la woon loola ñun nag suñu jëf yi yëpp day dugg ci biir jëfi Seexul Xadim rek ndax moom la ñuy nattalee nam ko daan defee di ko jéem a roy di jéem a topp ci ay tànkam jéem a jëfe itam ndigalam yaakaar ci it ak nangoom te nangu gi it li ñu li tax ñu am ci ñu mën na wax ne yàqin lañ ci am mhm. mooy Serigne Sam wax na ko léegi mhm. ki fi nekkal sëriñ Touba moo joxe ndigal li mhm. moo sant moo gërëm moo ñaan kon nag ñoo ngi sant képp koo xam ne sa loxo dugg na ci gàmm gi ak nu ci duggee nag ni ko sëñ Afi li waxee léegi rek li tàmbalee ci baas bi ñu taxaw rajo yi ñuy waxee ba ci caméra yeeg écran yeeg pôle yeeg yëpp. basang yeeg waaye yeeg yëpp waaye ba ci ñi nag yeeg ndugg meeg jigéen ñi doon togg ak ba ci oto yi ko doon roñ sax di indi nit ñi di ko jariñoo ñun ñëpp. nañ gëm ni xaj nañu ci tiyaaba ji xaj nañ ci tiyaaba ji ñoom ñëpp itam suñu borom faggalu na leen ci tawfeex joo xam ne yaakaar na mënuñu ko woon a ci leneen lu dul lii waaye nag euh, seen tawfeex la te yéene nañ leen ci tiyaaba jooju ñu ci war a amee kon daal sëñ Ablaye ñi ngi sant ñëpp góor jigéen mag ndaw ku bokk ci daayira ku bokkul ci daayira képp ku ñu àndal liggéey bi ak fu mu mën a jógee nu mu ci mën a duggee rek wala sax nga xam ne da ngaa jottali ñi jottali sax ñi jottali sax ñi ngi leen di sant bu baax ñi ne bitim réew mm-hmm. ñi ne ci biir réew mi ñi ne ci biir Touba ñi génn Touba mm-hmm. ñëpp bàyyiwuñ kenn ña ñenee Amérique ña ne Espagne ña ne France mm-hmm. maanaam ci Europe rek ci tënk ak ñi nekk Afrique ak ñi nekk Amérique ñëpp ñi ngi leen di sant bu baax kenn ku nekk lu mu jàpp ne war naa mën a baaxal gàmm gi rek def na ko loolu euh, nag wax dëgg yàlla kon buñ taxawee fii tey ji nekk ci tëjtal yi mu mel nii mu mel sant leen la ñuy def fi ñuy mujj nag mooy ñu amee woon organisation bi ñi amee woon organisation bi di ndaw yi nga xam ne ñooy ndaw euh, mu xaddamatul xidma ak ñi ñoo àndal liggéey bi ñëpp te nga xam ne dañoo bokk ak ñoom liggéey bi yu yeneen i daayira yu bàyyi koo feneen lu demee ne ilhaamul lu mel ne muqaddamatul xidma bu Louga ak ñi ñu ko àndal ñëpp rek jëru lim sëli li muqaddamatul xidma yëpp rek di nekk Sénégal gépp mm-hmm. ñoom ñëpp kenn ku nekk lam la ko war ci liggéey bi lépp def na ko ci jëf joxe ay ñaqam ñaq ak ñoqeem ñaar yi ko li ko war lépp ñaq ak ñoqi waaye daayira Muxaddamatul si léegi Muxaddamatul Xidma yu jigéen ñi yi nga xam ne ñooy ñëw par semaine ñoom ñëpp kenn ku nekk itam lam ci war a taxawee taxawee na ko ba mu mat sëkk euh, yi nga xam ne ñoo nekk biir daayira bi itam mhm. benn commission bu nekk joxoon nañ ko aw waar wu mu war a liggéey ci biir liggéey bi waaye commission yëpp macha allah tey jii mën nañoo seere ne ñoom ñëpp seen liggéey rafet na mat na sëkk xam naa dañuy daal ci turu communication mii ñu jàkkaar lool mu jot leen ñu organisation jot leen ñu culture jot leen ñu finance jot leen ñu ñëpp intendance mhm. jot leen ñu social mhm. jot leen ñu ñëpp bàyyi wuñ kenn ñoom ñëpp daal nañ yëg ne sant nañ leen gërëm leen taxaw bi rafet na lool. rawatina waa santé def nañ fi liggéey bu am solo. rawatina nag waa santé. Mhm. ndax def nañ fi liggéey bu am solo. mën naa wax ne fi la ñu fanaan. taxaw couvrir gàmm gi. li def fi liggéey bu rafet. Mhm. bu boo xam ne mucc na ayib. Mhm. ñoom it yal na leen yàlla fay. déployé seen ambulance mi ngi fi. ambulance baa ngi fi médecin yaa ngi fi infirmier yaa ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi euh, tabarakallahu mhm. sant leen bu baax a baax a baax rek. force de sécurité yi. force de sécurité ñu leen bàyyi police. sapeur sapeur pompier ak sécurité bi nga xam ne ñooy ñoo nekk ci ci jumaa ji. ak ñi leen di jàppale. ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a xam naa itam waa euh, ñi nga xamante ne ñoo yoroon sonorisation bi tam nga xam ne ay suñuy mbokk yu jógee euh, soow la ñëwoon du ñu jàppale ci sonorisation beet ñoom itam amel nañ leen cant bu baax a baax ci seen taxawaay ak seen coono. waaw waaw euh, dama leen dugaloon ci biir communication. waaye ba léegi mën nañ leen beral seen cant bopp. ndax ñoom ñoo ànd liggéey bi. Mm-hmm. ñuy jot képp kuy jot li rek ci la bokk. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñoo amee woon sonorisation bi. Mm-hmm. ñoom itam wax dëgg yàlla teel nañoo ñëw. installé nañ ñaari fan yi yëpp ñu ngi fi di installé waaye fa tabarakallahu macha allah liggéey bi am na solo lool ren yaakaar naa gàmm nañ ba tàmbali nañ ba ni ñu jeexale amul benn jafe-jafe mhm. amul benn coupure amul benn dagg-dagg kon techniciens yi fi ñëw kilifa yee leen yebal ñu ngi leen di seeral ne ñoom jëf nañ jëf ju rafet jëf nañ jëf ju baax am nañ yéene ju sell waaye ñiñ fi yebal liggéey nañ fi liggéey bu rafet boo xamante ni bii mat na sëkk dara sooxewu ci ñu ngi ñaan ñoom it yàlla na seen mbir ah, yëpp sottee noonu te rafete noonu ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf sëñ Abdou jërëjëf kaddu yi am na solo comme ni mu ko waxee rek cant gi moom mënta weesu cant kon bu santee mbooleem commission yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara Muxaddamatul Xidma santaale na mbooleem kuréel yi ak ñi nga xam ne jàpp nañ ci ak nuñ ci jàpp ci biir réew mi ak bitim réew ak nuñ ci jàppe rek cant gi genn la Cheikh Mamadou Muntaxa sant na ko ci làmmiñu sëñ Ahmad Badawi waaye moom ci turu daayira Muxaddamatul Xidma kon euh, mbir maa ngi noonu. Euh, yàlla nañ ci dajeeg tawféexi sëriñ bi kon ñi ngi sant bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy communication ak taxawaay bi ñu ci taxaw biñ ci biñ ci def ci fexe ba tasaare mbooleem li nga xam ne moo xew ci jumaay Touba mbooleem télévision yi fi ñëw mbooleem site internet yi nga xam ne soxla woon nañ lien ñu jox leen ko ci njiitu sëriñ Abdoul Khadir Bousso euh, sëriñ Bàcci sama caméraman bi ma jàkkaar lool waaye itam sëriñ Xaban Mbàkke mii ci nekk ci régie bi ak euh, sëriñ Mourtada mi nga xamante ni moo nekk ci réalisation bi ci biir jumaay Touba fàttewuñu itam euh, mbooleem ñi nga xamante ni ay photographe lañ waaye sëriñ Bousso mi ngi ci sëriñ Fallou say caméraman ñoom ñëpp ngi ci ñu doon nekkoon ci bitim réew sax doon nañ dund gàmmu gi ci biir Touba euh, ci jumaay Touba kon mbokk yi euh, lii mooy li ñu leen indiloon ren ci gàmmuk édition 2023 atum 1445 di ñaan suñu borom ñu fekki ko ay at yu bëree bëri ci barkeb Cheikhul Khadim wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.